maa leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di commencé nuyu kilifa yu baax yi toog fii ñoom Serigne Assane Mbacké ñoom Mara Niass l'honorable maire Mayakor Diouf di ñaan nag yàlla yàlla na ma may xel mu mel ne xelam Cheikh Bara Ndiaye ngir ma mën a wax wax joo xam ne mën ngeen koo dégg bu fekkee ne danga am bâtiment bu màggat di ko toj waaye doo wooy menuisier doo wooy tailleur da ngay woo maçon bi nga xam mu ñëw tojal la ko moo tax comme maa xam système bi Ousmane ne ma doyee kaay ñu ànd nga nekk la maçon buy toj ma nekk l'architecte buy ñëw tabax lu bees Ousmane Sonko bi ñu ko defee teg ko doole mu nekk ci kaso bi daf ne ma Habib dama bëgg yow yaag sama yaay ay demooj ngeen uufal ma xale yi madame la présidente Les jeux sont déjà faits. Amadouba est déjà vaincu. Macky l'a été depuis longtemps. Ousmane Sonko a remporté la victoire. Basirou Diomaye a gagné. Abibsi a gagné. Le projet va s'installer parce que c'est un projet d'espérance, un projet d'espoir pour la jeunesse sénégalaise. On vous l'a dit tout à l'heure, bu leen yàkkamti Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw Ousmane a ngi ñëw merci merci à bientôt